أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ak yéen ci tafsirul quran ci suratul baqara ci kàttanu borom asamaan ak suuf ñu fas yéene commencé tey aaye juróom fukk ak ñeent ba aaye juróom fukk ak juróom ñaar aaye yi nekk sunu kanam ñi ngi ciy jël ñeenti mbir bu njëkk mooy cibaadatu lmumin gayru llahi wa huwa yaclamu annaha cibadatun li gayri llahi taala tuctabaru riddatun minhu wa shirka ab jullit kiy jaamu yàlla muy jaamu leneen lu dul yàlla te mu leer ko ne lii muy jaamu du yàlla loolu boroom xam-xam yi dañu ne dañ koy jàpp muy ku murtad ku génn ci lislaam su fekkee waa ji jàpp nañ ko muy ku murtad ku génn ci lislaam ana lan mooy nekk atteem mooy dañ koy rey dañ koy rey ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na almurtaddu yuqtalu bi hadisin sahih man baddala diinahu faqtuluhu kon gis ngeen jaamu leneen lu dul yàlla mu leer le ne yow li ngay jaamu du yàlla yow génn nga ci lislaam ci lislaam dañ laa war a rey ndax yonent bi nee na ku changé diineem rey leen ko ñaareel mooy li ñuy jëlee ci aay yi mooy mashruiyatu yoonal nañ qitaalul murtaddiin dañoo yoonal ci lislaam ñu génn ci yoonu yàlla dañoo war a xeex ak ñoom ñu génn ci yoonu yàlla dañ leen war a rey dañ leen war a dañoo war a xeex ak ñoom hadis bi moo wax ne ku génn ci diineem rey leen ko waaye kañ la balaa ñu koy rey foog ñu tuubloo ko bu tuubee ñu bàyyi ko bu lànkee ba ñu tuub diine ji nee na nañ ko rey ñetteel bi ñu jëlee ci aaya yi ñu fas yéene jël mooy illatu haya kulluha shukrullahi taala bi ibadatihi wahdahu mbokk yi ñun ñëpp war nañu ànd xam ne illa gi tax yàlla binduñu ñu nekk ay jaam yàlla wàccee ñu ci kaw suuf illa gi mooy lan mooy ñu sant ko ñu jaamu ko ñu kennal ko moom yàlla tabaraka wa taala buñ la laajee doomu aadama lu tax yàlla bind ko tontul neel mu jaamu yàlla wéetal yàlla sant yàlla tabaraka wa taala lii mooy illa ak bindug yàlla doomu aadama tabaraka wa taala ñeenteel mooy alxalaalu min almatami walmasharib wa gayriha ma ahal allahu walxaraamu ma ahal allahu azza wa jal li dinañ jàng ci aaya yi nekk sunu kanam li dagan ci lekk lan la jullit war a lekk li dagan ci li jullit war a naan li dagan mooy li yàlla daganal li araam mooy li yàlla araamal loolu dinañ ko jàng ci aay yi di ñëw lépp loo xam ne dagan na ci wàllu lekk lépp loo xam ne dagan na ci wàllu naan dinañ ko jàng ci aay yi ñu waxoon sànq ne moom lañ fas yéene jël muy ñeenti aaya aaya 54 ba aaya 57 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وزللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ فتلك ال- قال بموحي موسى يننتك تد موسى borom baa ngi nettali ci alquran mu ne na ngeen fàttaliku ba Moussa waxee Moussa ñan lay waxal li qawmihi ñeel ay nitam mu ne leen yaa qawmi ay yéen samay nit yéen sama mbooloo yéen ñi nga xam ne yàlla ma tànn yónni ma ci yéen innakum yéen ñii zalamtum tooñ ngeen anfusakum seen bopp nan ngeen tooñee seen bopp bittixaasikum ci jàpp bi ngeen jàpp ala iji la yëkk bi di ko jaamu yonent yàlla Musa la yàlla yónni ci banu Israil yàlla woo ko moom Musa dem di wax ak moom ci montagne bu tudd tuuri Sina waa banu Israil daa di dajale seeni takkaay yi seen jigéen ñi daan takk benn waaye bu tudd Moussa Samiri yu daal di leen koy proposé ak Samiri jigéen ñi daal di dajale takkaay daal di koy jox mu daal di koy ruyal defal leen ko benn nag bi mu defalee nag bi ba pare nag bi or bi la ko defaree mu wow ko mu nekk weñ waaye li yéeme mooy dafa def suuf ci gémmiñ gi nag bi di nàññ di yuuxu ñépp di ko dégg mu ne leen lii mooy yàlla Moussa Moussa dafa dem bàyyi ko bi yàlla Moussa ngi ni jaamu leen ko moo tax Moussa bi mu ñëwee mu gis mbooloo mi di jaamu nag bi mu ne leen tooñ ngeen seen bopp moo tax gis nga ku mooy yàlla tooñoo yàlla de koo tooñ sa bopp moo tax mu ne leen innakum zalamtum anfusakum yéen tooñ ngeen seen bopp ku mooy yàlla rek sa bopp nga tooñ ku jaamul yàlla tooñoo kenn ku dul sa bopp ku fàggu ay bàkkaar tooñoo kenn ku dul sa bopp tooñoo yàlla sa bopp nga tooñ sa bopp nga lor lu tax mooy résultat ñàkk a jaamu yàlla fan lay teere sa kaw bopp wala mu ne leen tooñ ngeen seen bopp zalamtum anfusakum zulmu nafs mooy tooñ bakkan mooy lan mooy tilimal ko takkal ko ci ay bakkaar yaa ngi waroon set laab di jaamu yàlla nga dem dugg ci ay bakkaar def loo warul def bañ a jaamu yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla mu ne ñoom banu israil lànk bi ñu lànk jaamu yàlla tooñu ñu kenn seen bopp lañ tooñ ndax dem nañ jël yëkk ba jaamu ko yëkk bi nga xam ne defaral nañ leen ko ci or bi mu ko defaree ba pare fa qaala lahum mu ne leen haada ilahukum wa ilahu muusa lii mooy seen yàlla mooy yàlla muusa ndeysaan yàlla muusa ngi nii fa abduhu jaamu leen ko fa ataaxuuhu na ngeen ko topp ndeysaan mu daal di koy topp aksarahum li ëpp ci ñoom wa abadul ijla ñu jaamu yëkk ba fa kaanu ñu nekk nag murtad diina dañoo murtad gis ngeen moo tax doomu ndey yi maa ngi fàttali ñu nekk ci jàkk ji alquran day tere ñuy jàngale alquran ay nit di wax fa iza quri alquran fastami'u lahu bu ñuy jàng alquran kenn warul wax maa ngi koy fàttali ñu nekk ci biir jàkk ji mbokk yi ñii lan moo tax ñu ne dañoo murtat mooy dañoo jaamu yëkk dañoo jaamu yàlla ba mu neex leen ñu tourné bàyyi yàlla dem di jaamu yëkk moo tax ñu yor àtte ku murtat ku murtat mooy lan mooy ku génn ci lislaam luy sa àtte dañ laa war a rey tër jël jaasi dagg sa baat léegi nag bu fekkente ne dañuy jël àtte bi di xool tey réew mi tey nit ñi kon ñi ñi fiy defal lu tuuti lu tuuti lay doon ñi murtat ñu bëri ci doomu aadama yi dañuy jaamu yàlla waaye dañuy bokkaale wa ma yu'min aksarahum billah illa wa hum mushrikun li ëpp ci nit ñi dañoo gëm yàlla waaye ak yàlla ak yàlla ak gëm yàlla gëm garab gëm yàlla gëm reen gëm yàlla gëm pitaaw gëm yàlla gëm aada gëm yàlla gëm bàmmeel gëm yàlla gëm xërëm yàlla rek yàlla moom du dend ak kenn wala lenn abadan yàlla kese kese kese yàlla loo ko dendal rek mu daal di génn moom daal lay bàyyi gis nga ñii ba ñu jaamoo yàlla ba mu neex leen ñu dem bokkaale ndigal wàcc seen kaw yàlla mu ne nan leen rey fa tuubu yàlla mu ne leen tuub leen ila baari'ikum jëm ci seen boroom jaamu gi ngeen jaamu xërëm bi jaamu gi ngeen jaamu ëkk gi jaamu gi ngeen jaamu nag bi jaamu gi ngeen jaamu lu dul yàlla tuub leen fa tuubu tuub leen ila baari'ikum ci seen boroom alxaaliq azza wa jal lan ngeen def ba ngeen war a tuub mooy da ngeen a bokkaale yàlla da ngeen a jaamu nag yajcalukum al ijla allazi saagahu saamiri min xuli nisaikum ilahan abartumuhu saamiri moo leen nax trompe leen dafal leen ci seeni takkaayu jigéen yi ngeen jigéen ñi doon takk mu defal leen ci benn ëkk benn yëkk ngeen bàyyi yàlla dem jaamu ëkk gi kon tooñ ngeen yàlla nag tuub leen seen tuub leen jëlu ci seen borom fa tuubu tuub leen ila baari'ikum jëm ci seen borom faqtulu anfusakum rey leen seen bopp gis ngeen li ñu doon wax sànq mooy ku murtat dañ la war a rey léegi nag comme ñi bokkaale nañ génn nañ ci lislaam yàlla ne leen faqtulu anfusakum rey leen seen bopp lii mooy àtte ku murtat dañ la war a rey nan la ñu reyantee nan lañ leen reyee mooy yàlla mu ne ci mbooloo mi yéen ñi jaamu yëkk bi ñi jaamul yëkk bi nañ leen rey ku nekk ne da gàddu jaasi dem sa kër ku fa jaamoon yëkk bi nga rey ko loolu mooy seen àtte pour ñu tuub yàlla baal leen fa tuubu ila baariukum tuub leen dellu ci seen borom tuub boobu nan la la ko yàlla di nangulee mooy faqtulu anfusakum rey leen seen bopp kenn ku jaamul woon yëkk bi na jël jaasi dem këram ku fa jaamu woon yëkk bi na ko rey boo reyee sa jabar koo rey sa bopp boo rey sa doom koo rey mais sa bopp moo tax yàlla mu ne faqtulu anfusakum rey leen seen bopp rey leen seen bopp gi du yow yow mi sa bopp nga jël sa bopp jël jaasi daal di jam sa bopp wala déedéet mooy sa mbokk bi jaamuwul xërëm bi yëkk bi mooy ñëw fekk la nga toog mu dóor la jaasi nga dee ku rey sa doom sa bopp nga rey ku rey sa pap ku rey sa yaay ku rey sa soxna ñooñu say bopp lañ bokk moo tax yàlla mu ne leen faqtulu anfusakum borom xam-xam yi nee nañ keroog la ñu rey ah fa qatalu minhum sabu sabiina alf sabiina alf la ñu rey juróom ñaar fukki junni ci nit ci waa banu israil rey nañ ko keroog ñi jaamu woon yëkk ba kon dinañ jàng ci aaya yi mbokk yi bokkaale du lu ndaw bokkaale dafa garaaw xoolal ñi mënoon nañoo wax ne ah yàlla ñun benn fan rek lañ jaamu yëkk bi benn fan Moussa daa dem rek ñu defal ñu yëkk bi benn fan la wala ñaari fan la mutu sax weer te benn yoon lañ ko def tuub nañ baal ñu yàlla mu ne déedéet tuub gi mooy yéen ñi jaamoon yëkk bi dañ leen di rey yàlla doog leen baal faqtulu anfusakum rey leen seen bopp kon nañu bàyyi bokkaale yàlla kenn du ko dendale ak dara chaque jour ñu wax ko yàlla ay mbiram moom kenn yàlla buggul ma sàmba buggul ma demba fii may wax ak yéen koy xalaat ci sa xel ne kii xanaa war naa koo mën a dendale ak yàlla rek kooku laay wax ku ma mën a doon nag bu dee sax yonent bi yonent bi sax kenn du ko dendaleeg yàlla yàlla rek dafa am loo xam ne yàlla rek moo ko moom kenn moomu yonent bi sax moomu jaam yonent bi moomu ko yàlla moo ko moom saa yoo jëlee li ñu war a defal yàlla nga defal ko nit tooñ nga yàlla dafa am lu yàlla moom jox ko am lu yonent bi moom jox ko ko am lu sahaaba yi moom jox leen ko am lu sa papa moom jox ko am lu sa yaay moom jox ko am lu sa borom kër moom jox ko am lu sa jëkkër moom jox ko am lu sa jabar moom jox ko am lu sa doom moom jox ko ku nekk daa am loo moom fati kulli zi xaqin xaqa te ku nekk jox ko li moom waaye boo jëlee li yàlla moom jox ko sa papa tooñ nga yàlla tooñ nga sa papa boo jëlee sa jëkkër li moom nga jox ko yàlla tooñ nga ku nekk daa am loo moom yeneen bi nee na ansilu naasa manazilahum nit ñi nañ leen wàcce seen place mbokk yi yàlla ne leen rey leen seen bopp faqtulu anfusakum amarahum an yaqtula man lam yabudu l ijila yàlla digal na leen ku jaamul woon yëkk bi mimman abada minhum al ijla yàlla ne yéen ñi jaamul yëkk bi rey leen ñi jaamu yëkk bi wa jaala zalika tawbatahum yàlla def loolu mu nekk seen tuub yàlla ne leen pour ma baal leen loolu rek ngeen di def mooy da ngeen di reyanti fa faalu ñu daal di koy def ñu rey ci ñoom juróom-ñaar fukki junni ñu doon jaamu nag ba ñu rey leen fa taaba alayhim bi qubuli tawbatihim yàlla daal di nangu seen tuub daal leen di jéggal daal leen di baal borom bi tabaraka wa taala mu ne zalikum xayrun lakum lii de moo gën ci yéen ñu rey leen ñi jaamu woon yëkk ba rey ñi doon jaamu yëkk bi moo gën ci yéen ngeen tuub fii ci àdduna yàlla baal leen moo gën ngeen deewaale bokkaale su ngeen deewee dem safara bokkaale ku ko deewaale safara nga jëm innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnar wa ma lizalimina min ansar yàlla nee na li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale du ma la baal man yàlla safara rek nga jëm bokkaale ku ko deewaale rek safara nga jëm yàlla du la baal xoola yonent bi ni mu toll sallallahu alayhi wa sallam yàlla joxoñ ko baaraam ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxasirin di naa ci sama màggaay ba ma bokkaalee man yàlla di nga bokk ci ñu perte sa jëf dana yàqu di nga bokk ci ñu perte allahu akbar gis ngeen bokkaale day yàq jëf xam ngeen bokkaale nu mel ci misaal nañ la indil gerte rek yàlla nag buñ ko saaf nag ba mu ñor buñ ci defee xorom mu tudd tudd caaf déggal mu ne caaf bu ñu ci defee suukar mu dund léegi nag nga yëy di yëy ba sa gémmiñ fees nga dugal benn bu nëb boo dugalee benn bu nëb te gémmiñ gaa ngi feesoon ndeysaan nooy def da nga yàbbi bu tax war noo ko xoolal da ngaa yëy téeméeri gerte ci biir gémmiñ gi nga yëy ba mokk nga dugal benn bu nëb benn téeméer yu baaxan ci biir de mais benn bu nëpp nga dugal rek mu changé li neexoon yépp yàq ko nan nga def loolu la bokkaale mel da nga yendoo jaamu yàlla ba ngoon ngay tëdd ñoo ci sa kawlal nga ne ci barke diw li nga yendoo jaamu yàlla yàqu na li nga defoon yëpp suba gi ba ngoon yàqu na lépp yàqu na tout ndax bokkaale la bokkaale baaxul day yàq jëf mbokk yi mën nañu yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu màggee ci yàlla yàlla ne ko sooma bokkaalee sa jëf yëpp ay yàqu te di nga bokk ci ñi perte bokkaale baaxul gis nga ñii yàlla ne leen ñu rey leen ci àdduna moo gën ci yéen zaalikum loolu xayrun lakum moo gën ci yéen inda baarikum ci seen boroom ñu daal di jël jaasi rey ñi jaamoon yëkk ba yëpp dagg seeni baat yàlla nee na fa taaba aleykum ma daal di nangu seen tuub ma laal leen di baal innahu moom yàlla huwa moom ba tey attawaab mooy nangaa koonu tuub arrahim moo jagleel julli di yërmande àllaaxira yàlla rek ngay tuub mu jéggal la islaam amul comme yeneen diine yi nga dem def lu la neex samedi wala dimanche nga ñëw ci waaji rek mu raay sa bopp daal lay jox benn tàngal ne la baal nañ la sa bàkkaar loolu amul ci lislaam amul ci lislaam lislaam moom da ngay tuub rek dem ci yàlla tuub rek jëkkalu yàlla baal la amoo kenn koy dem ne ko man de damaa mooy yàlla bii mu ne la ah loolu de du dara loolu de moom dinaa ko lijjanti non déedéet yàlla rek saa yoo tarxiisee dawal demal jàpp jullit ñaari rakk su jootal ci sa kanam borom jégglu ko yàlla jéggal Ibrahima wala Adama keroog ba mu tarxiisee ah Adama tarxiis mook Awa ñu seytaane génne leen biir aljanna lan la yàlla wax bi ñu tuubee yàlla nangul leen tuub fa talaqa aadamu min rabbi kalimaat fa taaba alayhi gis nga fa taaba alayhi lu tax demul ci keneen daan ko jéggal ma yàlla moom moom tuub te nag tuub ku koy def kan mooy tuub kuy tuub ku def bàkkaar est-ce que am na ku dul def bàkkaar damay laaj ndax ku dul def bàkkaar am na am na ngeen ngeen rek am na am na xam naa gars yi ñu ngi xalaat naan diw diw diw di tudd seen tur ci xol kooku kooku ngay xalaat kooku la kooku day def bàkkaar kooku waaw kooku bàkkaar kooku kooku ngay xalaat naan du def bàkkaar kooku laay wax waaw moom ay conteneur la yor waxuma ko de yonent bi moo ko wax kullu ibnu aadama xattaa'un wa xayrul xattaa'iin tawaabiin yonent bi nee na doomu aadama yëpp ay def bàkkaar mu ne ki gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy kii tuub Ablaay ibnu ab Mas'ud su ma juumulee da daan wax ñi mu àndal sahaaba yi law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt su ngeen xamoon samay bàkkaar da ngeen may dóor ay xeer ba ma dee mbokk yi ñëpp am bàkkaar nahnu musnibuun wa abnaul musnibuun ñun ay defkatu bàkkaar lañ ay doomu defkatu bàkkaar lañ ki gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy kii tuub mooy kii tuub moo tax yàlla mu ne bu ngeen defee bàkkaar tuub leen dellu ci man ma baal leen moo tax waa banu Israayil ba ñu defee ay bàkkaar yàlla jox leen ni ñuy tuubee ñu daal di tuub yàlla mu ne innahu fataaba alaykum innahu huwa tawaabu rahim yàlla nangu seen tuub ndax yàlla mooy nangu tuub moom yàlla mooy yayoo yërëme yërëme àlla yërmande àllaaxira ëllëg jullit yi àllaaxira yàlla bàyyi na loolu ba tey mu ngi ci mbiru banu israil waaye ci beneen mbir mu ne wa is fàttalikul qultum ba ngeen waxee yéen waa banu israil ngeen ne yaa Muusa yow yonent yàlla Muusa ñun waa banu israil lan nu'minu laka duñ la gëm hatta nara allaha jaharatan lu dul nga wan ñu yàlla face à face ñu jàkkaarloog moom si ngeen de lan nu'minu laka lan harfu nasbin allahu akbar ñi yàng ñi yàng naxu xam nañ lan lan nu'minu laka duñ la gëm mukk mukk mukk mukk hatta nara allah lu dul dag ñoo won yàlla nii face à face jahratan ñu jàkkaarloog moom ah ñu xam kii mooy kan allahu akbar Sénégal de gars yi ne dañuy gis yàlla déggu leen ñii ba ñu waxee Moussa dañoo bëgg a gis yàlla waaw ñoom dañu ne ñun dañoo bëgg a gis rek gisaguñ ko de yàlla mu ne fa axasatkum mu jàpp leen asaiqatu benn xaaju naar safara gis nga bi ñu waxee loolu safara moo takk seen kaw ñoom ñépp fa axasatkum mu jàpp leen asaiqatu safara ñoom ñépp wa antum yéen tanzur na ngeen di xool ñoom ñëpp ñu dee safara lakk leen ñoom ñëpp benn safara boo xam ne dafa ànd ak niir mu ànd ak ngelaw ànd ak taw ànd ak dënu mu xaaju seen kaw dër ñoom ñëpp ñu dee te ñoom dañoo noonu dañoo bëgg a gis rek gisaguñ ko de ñu dee léegi nag ana fii Moussa Ndiaye yeeg Abdallah Thiam yeeg Omar Sarr ak Ibrahima Sow ak lekk seen cërëng bu mbësuur kiris karas seen tube dem baali ba fajar ñëw ne dañoo gis yàlla wala benn waay ne gis naa yàlla ne ko lu mu soloon nu mel ban heure nga ko gis distance bi sa digganteeg moom ñaata mètre la woon ku la wax gis naa yàlla rek laaj ko loolu du la tontu de foo ko gis nu mel nu mu toll lu mu soloon sa distance bi sa digganteeg moom lan la wallahi koo laaj yi du la tontu ku la ne gis naa yàlla laaj ko lii sunu benn dëkkandoo doomam daa ñëw ne ko papa gis naa yàlla mu ne ko loo ko wax mu ne waxuma ko dara mu ne ko xaar ma mu ñëw mu dem jël yatu ngot ngeen yatu ngot jàpp booy bi ne ko loo gis mu ne yàlla ne loo ko wax mu ne wax ma ko dara mu ne nga xam ko man polom yi laa sama liggéey demee woon demewul noonu damay tolof tolof nga gis ku tol ne yàlla waxoo ko sama papa dafa am problème pour mu dimbali ma wulli ko ba mu nooy ne beneen yoon boo ko gisee di nga ko wax sama problème keneen ki suñu dëkkandoo la ba tey dafa am benn waay bu ko doon wax ne man yàlla laa moo boo ko mën gis naa yàlla sax da ko doon wax man yàlla laa yow yàlla nga nit ñëpp ay yàlla lañ waa ji di ko tere mu làng benn bis mu génn guddi ñu agressé ko toj bopp bi xam naa mi ngi may dégg sax bu ñuy tojee bopp bi mu dem faju hôpital ay fan kenn seetiwu ko mu dajeeg jabaru xaritam bi mu ne ko yow sa jëkkër ku bon la mu ne lu xew mu ne sa jëkkër yëg na dañ maa agressé jaase lañ ma dóor ci bopp sama bopp toj seet si wu ma ba tey jabar ji ne wanewee naa ko wax daal di ñëw ne ko diw mu ne ah mu ne yëg nga ne diw dañ ko agressé mu ne yëg naa ko kay ne lu tax seeti woo ko mu ne lan la mu ne dama gis dama ko dama dajeeg moom mu ñuy xas mu ne génn ci sa yoon nekk ci bàyyi ma ak moom rek waa ji faju ba wér ñëw ne day xuloo si mu ñëw fekk waa ji toog mu ne ko yow ku bon nga maa jàpp ci yow ndeke jàppoo ma yow nga yëg ne dañ maa dóor jaas sama bopp toj ah ñëpp seet si ma ba mu des yow yow tax seet si ma xalaat yëgoo ko daje naa ak sa jabar ji wax ko waa ji ne ko yëg naa ko kay mu ne ko léegi nag dox seet si ma mu ne ko yàlla yi di xeex man mbindeef lu ma fay wuti mu ne lan loolu mooy lan mu ne du yàlla nga mu ne waaw mu ne ñi la agressé yàlla lañ mu ne waaw mu ne yéen yàlla yi ngeen di xeex man mbindeef ma ñëw ngeen may tànc may dee du ma ko def ay mu ne baal li ngay wax waaye baal li ngay wax waaye xam nga kooku xam ne ne du yàlla de yàlla dañ ko dóor jaas reew rek naan man yàlla laa reew rek ma ni yàlla kenn mënu koo gis la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar bal laysa ka mislihi shay yàlla nuróowul ak dara te yow li ngay gis dara la yàlla nee na ma nuróowuma ak dara kon nit dul gis yàlla ah benn mi- benn misaal laa leen di jox est-ce que ginnaaw mur bi mën nañ gis li fi nekk yéen a ngi gis ginnaaw mur bi lu fi nekk lu tax parce que seen gis-gis dafa am limite ah lu rëy bët mënu ko gis léppam gis nga jàkk ji léppam mënu leen koo gis fi mu nekk nii lan ngeen di gis ci biir lan ngeen di gis ci jàkk ji ci biir kese li ngeen jàkkaarloo même ci biir jàkk ji sax li ngeen jàkkaarloo ngeen gis waaw yàlla nag ak jàkk ji lu ëpp kuy tontu yàlla yeneen bi nee na boo bëggee xam yàlla nu mu toll dugal avion boo demee ba kaw asamaan nga tëmbal sa jaaro nga taxaw nag di xool jaaro ji lan lay occupé ci kaw suuf nee na loolu jaaro ji toll noonu la ars toll ci kursi yi noonu la ars toll ci kursi yi yàlla noonu la toll ci kaw ars kon yàlla nu mu toll jàngeen alquran yàlla mu ne yowmal qiyam asamaan ak suuf dama koy lem téye ko ci sama benn loxo ndeyjoor sama loxo ndeyjoor wa samawaatu mutwiyaatun bi yamini asamaan ak suuf ku ko lem téye ko ci sa benn loxo ndeyjoor kooku noo toll ah noo toll kon kon yàlla kenn mënu koo gis ndax sa bët bi dafa am limite dafa am lu mu mën a gis rek am lu mu mënta gis yàlla nag tabaraka wa taala ëpp na li ngay xalaat mbokk yi wa is fàttalikul yaa Muusa yow Muusa ba gaa yi waxee lan numinu laka duñ la gëm lu tax hatta narallah ba ñu gis yàlla jaharatan face à face ba ñu ko waxee faaxasat ko mu jàpp leen asaiqatun safara buy lakkee wa antum yéen jamono yooyu tanzuruna yéen a ngi xool su ma topp ba asnaakum ma dekki leen gis nga ñoom ñoom ñu dee yàlla daal leen di dekkilaat lu tax yàlla dekkil leen Moussa mu ne yàlla ñii maa ànd ak ñoom ba fii ci àll bi nga rey leen comme ça su ma demee dëkk ba ñu ne maa leen rey beneen problème laay am ndax xam nga ne banu Israël dañoo dëgër bopp yàlla daa leen di dekkil gis nga xéewal gu yàlla defal banu Israël rey leen dekkil leen su ma baas naa kum ma dekkil leen min mbaadi mawtikum ginnaaw ba ngeen faatoo laallakum ndax yéen taskuru na ngeen sant yàlla xam ne leen rey na leen léegi dekkil leen léegi ngeen sant ci lim leen defal mu ne yow ma ci xéewal yi ma leen defal ba tey wa zallal naa keral naa aleykum ci yéen alxamaama niir wa banu israel bu ñuy dox naaj bi tàng yàlla yónni niir asamaan niir bi ñëw keral leen xoola ñi rek li leen yàlla defal bokkaale nañ yàlla baal leen wax nañ dañoo bëgg a gis yàlla yàlla rey leen dekkil leen ñu dox ci tàngaay yàlla keral leen niir wa zallal naa ma keral aleykum ci yéen alxamaama niir wa sahaab raqiq abyad niir wu sew wu weextal yàlla keral leen ko jant bi du leen laal wa anzal naa ma wàcc aleykum ci yéen almanna wa salwa ñaari lekk mi ngi mel ne ceeb soos wala supp kàññe la maafe domoda wala biftek noonu la rek almanna wa salwa benn lekk bu wow ak ñeexam bu muy àndal loolu mooy mën na ak salwa El Hadji Omar Foutiyou jóge na Sénégal dem ba Palestine di gëstu ji lan mooy mën na ak salwa ndax mën na ak salwa ñi koy firi téere yépp yenn saa yi ñu ne la lii picc la lii soos la lii nangam la lii nangam la moom jógee na fi ci jamonoom Sénégal dem ba Palestine di xool lan mooy mën na ak salwa pour rek mu leer ci moom mën na ak salwa lekk la buy ànd ak ñi xam yàlla wàcceel na leen ko biir aljanna ñuy lekk fu dégg bëccëg waa banu Israël du ñu liggéey du ñu joxe dépasse jigéen ñi duñu toog góor ñi duñu joxe dépense dañuy toog heure lekk jot table yi wàcc ñu lekk bu suur loolu neex na de waaye comme ay mbaam lañ ay yéeféer lañ ñuy lekk ba mu neex leen ñu ne lii daal soof benn plat bu dajee maafe maafe maafe maafe bu dégg ba jëm ndeysaan yéen a ngi gis benn yenn saa ngi gis benn xale bu réew ci biir kër xamul nu dëxin dëxinoo xamul nu fonde fonde woo xamul nu mbaxal mbaxaloo mu naan man duma lekk mbax wala duma lekk dëxin dëxin guddi dëxin bëccëg dëxin guddi dëxin bëccëg man duma lekk dëxin fekk yow xamoo nu dëxin dëxinoo xamoo ki koy joxe ndax day dem Dakar ñu yendoo koo diri ba ngoon jox ko 1000 francs xamoo ndax day dem di di di di di sang ay xaj xamoo ndax day dem di di di di manque duus di gas duus ba ba ba ba ngoon jot ñu ñëw jox ko mu ñëw jox sa sa sa waajur mu togg dëxin nga naan bëgguma dëxin loolu moo dal waa banu Israël yàlla di leen jox lekk bu bàyyi ko kaw asamaan yàlla leen lekk leen naan leen kulu min at-tayyibaati lekk leen lu teey te dagan maa razaqnaakum li leen yàlla wërsëgal ñu daal di lànk ñu lekk ay fan rek ay jamono ñu ne lan nasbir ala taamin waahid ñun mënatuñoo sax ci benn plat benn plat guddeeg bëccëg mënatuñ ko sàppi na leneen lañ bëgg yàlla mu ne tey ngeen dee de moo tax yàlla mu ne wama zalamuna tooñu ñu ma loolu ñu wax ci changé plat du man lañ tooñ wama zalamuna tooñu ñu ma de walakin waaye kaanu nekk nañ anfusahum seen bopp yazlimuna seen bopp lañ tooñ xale bi ne bëggatuma dëxin paa bi mer joxeetul dëxin kër gi taalu dañu reen ku tooñ ah jeex na ñoom yàlla da leen dox jox lekk ñu ne bëggatuñu lekk ba yàlla téye lekkal ñu commencé souffrir moo tax yàlla mu ne wa ma zalamuna tooñu ñu ma dañoo yaakaar ne man lañ tooñ mais tooñu ñu ma gis nga ku def bàkkaar waxoon naa ko sànq bi may commencé gis nga fii aaya bi commencement lu mu wax innakum zalamtum anfusakum yéen tooñ ngeen seen bopp moo tax ku def bàkkaar tooñoo kenn sa bopp nga tooñ wa ma zalamuna tooñu ñu ma walakin waaye kaanu nekk nañ anfusahum seen bopp yazlimuna lañ tooñ seen bopp lañ tooñ ci lan ci mënatuñoo sax ci benn plat mënatuñu nangam mënatuñu nangam ba yàlla daal di téye lekk bi daal leen di indil mbugal mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ci li ñuy jëlee ci aaya yi waxoon nañ ko sànq mooy jullit ne jaamu yàlla moytu bokkaale ndax bokkaale day waral génn ci diine te génn ci diine day waral ñu rey la yoonal nañ ay nit bu ñu génnee ci lislaam na yeneen jullit yi takku xeex ak ñoom képp ku génn ci lislaam dañ laa war a rey na benn xale bu jigéen da daan muuru nekk sunit benn waxtu ñëw mu daal di murtad ndax feebar bu ko dab ay sayaatin jàpp ko mu dem église u parcelle bi daal di murtad bi mu murtatee ñu daal di koy yóbbu waa église bi fat ko mu réer seen waa kër waa église bi fat ko ñu koy wër kenn xamul fu mu nekk ndeke gars yi def nañ ko catholique muri ko commencé di ko yóbbu église di ko defal formation waaye dafa am mbokk buy faral di wax ne yàlla du def dara pour hasard xam ngeen xale boobu nu mu tudd aana aana lii aana aana turu la gis am doom tudde ko aana mu màgg murtat xabaar boobu maa ngi ko yëgee ci rajo dunia guddi may déglu rajo dunia ma dégg ko yaayam woote téléphone di wax ak benn borom xam-xam di ko expliquer situation bi ne ko sama doom ñoom diw ñoo ko jàpp génne ko ci lislaam te da doon muuru foo ko gis mu ngi kaame mu ngi placeu sàngam parcelle bi ma xëyee suba ma dem kër soxna si laajte ba egg sacré que kii amoo deux amoo deux ma laaj ca ba yegg si dajeeg yaay ji ma laaj ko histoire bi nu mu demee mu nettali ma ko li tax xale bi murtat ma ne ko anama mu ne ma li mu yëg daal mu ngi espoir ci benn kër làbbe foofu lañ ko dëkk ma ne ko ndax xam nga kër gi mu wax ma ko ma ne ko ndax xam nga ñu ko fa yor mu wax turuwaa ji ma ne yooyu yëpp am na ay renseignement noonu may wax ak moom ma dem bay génn ci bunt kër gi papaay xale bi ma dellu ci biir ne ko dama déggoon seen situation doom bi comme dégg naa day muuru te ñun daanaka ñiy muuru fi ñun ñoo leen di encadré moo tax ma ñëwoon doon laaj situation bi nu mu demee mu ne ma ah buñ ci sonn waay moom mesure na lu ko neex def léegi lu ma tont mu ne ma buñ ci sonn mesure na il est euh, en 33 ans bon il est mesure hein il a une tubaab yu ñuul yooyu ma xam ne kii moom laa xayra fii waaw jërëjëf ma jóg dem ñibbi ca suba sëb ma jël oto dem foire wàcc fi ñu ma waxoon ma topp mbedd mi di dox ba yegsi ci kër gi nga xam ne fii laa yaakaar ne fii la nekk ma sonné buntu kër gi am ko ubbi ma ne ko diw fii la dëkk mu ne ma waaw ma ne ko sama sœur dafay nekk fii ngeen accaparé ko fi te jullit la ngeen def ko catholique mu ne ko la wax loolu ma ne ko si ay renseignement yu wér laa ci am comme ndaw si lii la sant ma génne sama quarante na ko gis na mu ne ma mais nekk fiant dafa def église ma ne ko ban heure lay ñëw mu ne ma midi ma ne ko mun naa toog xaar ko mu ne ma non non fi kay doog toog ma daal di bàyyi kër gi reculer ay 30 mètres tax toog foofu xam naa ne mi ngi may séen ba moytu yëg na ci étage bi wala balcon bi séen ma daal di téléphoné église ba ne bu ñu indi xale bi ma toog fa ba 3 heures indi wuñu ko ñëwul maa ngi doon xaar rek mu wàcc ci oto bëgg a dugg ci kër gi ma daw xëcc ko yóbbu ko loolu laa doon xaar indiwuñ ko ma toog ba 3 heures indiwuñ ko ma dem ñibbi bi mu ñëwee ma woo yaay ji téléphone ne ko dem naa ba muy gisuma ko mu ngi église ba ca suba sa yaay ji woo ma téléphone ne yóbbu nañ ko Rome ci suba sa ci guddi gi lañ préparé ay kayitam te rawale ko yóbbu ko Rome mu def fa 3 mois. xam naa li may wax ne ñu bëri yaakaar ne ay léeb la mu def fa trois mois mu ñu bis ñu logé ko Sacré-Cœur muy jàngi muy jàngi Dakar mais benn jour bu xëy rek dafa amoon oto oto lañ ko oto lool muy dem jàngi ñu logé ko xoolal pour ñoom léegi chrétien la xam nga ab Ibaadu Rahmaan ñu def ko chrétien loolu ndam bu rëy la benn bis yëguñu rek mu daal di jàng si ak muuru kaayam yëf yi doy waar lii lan la nii mu ne leen mais man jullit la man dama doon muuru man xaw ma lu ma muri fekk ñoom situation yooyu ñu ko jàppoon dafa feebar ñoom mënuñu comprendre loolu mu ne man jullit la man damay muuru man lu muy indi fii sax ñu jàpp ko nag bu ko créer problème ndax ndax mu lànk ndax ndax mu lànk li leen woon ne ñu dangereux lañ ñu commencé bugg ko sàkkal pexe mu daw egsi ci ay mbokk ñooñu fat ko nëbb ko ñooñu ñoo di ko wër ñu ne leen gisuñu ko noonu lañ jokkook seen waa kër ba mu delluwaat gis nga te loolu tey boo koy wàññi ci Sénégal ak a bëri waaye xam nga rek jullit yi moom seeni mbir dafa doy waar xoolal jullit boo xam ne sa doom dafa feebar génn ci lislaam nga naan mesure na lu ko neex def moom sax sonn ci papam mesure na lu ko neex def parce que am na 33 ans lu ko neex def ma ne ko yow xamoo li ngay wax islam da ne ku murtat dañ la war a rey moom tey bu fekkoon ne jaase ngi fi mu nekk ku wér këng dañuy daggaw jàbaat bi kon ku murtat dinañ jàng ci aaya yi ku murtat dañ la war a rey dinañ jël ci aaya ba tey yàlla li tax mu bindu doomu aadama mooy ñu jaamu sant ko bañ ko bokkaale dinañ jàng ci ay encore li dagan ci lekk yàlla ara yàlla daganal na ko li araam ci naan yàlla araamal na ko
li dagan yàlla feeñal na ko li araam yàlla leeral na ko alxalaalu bayin wal xaraamu bayin mbokk yi
kàttanu yàlla tabaraka wa taala li ko doon naan tey aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh